démb ci altine bi bi ñaari waxtu ci guddi jotee lañu nemmeeku ab lakk bu metti ca marché Ocass Seyni di délégué marché ba di xamle ni mësul gis lakk bu ni mel waaw gars yi yéen ñu nelawagul marché ngi jàpp de marché Ocass yéen ñu nelawagul marché Ocass ngi jàpp. gars yi yéen ñu nelaw bu ko filmé rek marché bi marché bi. place ci marché bi say boo boo gisee kii nga daw ñëw buntu kër sëñ Mamadane jaar centre commercial Mouridulaye mi ngi nii jëm si ci marché forod ci dara ñaari oto fi ñëw ñi ngi nii toog képp ko gis daal na daw marché Ocass bi te na lu man ñeenti centre commercial ñeenti centre commercial mi ngi ciy jëm te mi ngi jëm centre commercial mooy bi képp ko gis ñëw ci marché bi place ci marché bi say nga ñëw ci marché Ocass marché waa ngi tàkk nii en direct buntu kër sëñ Mahamadan daanaka léegi muy sori muy lu jéggi dayoo ba tey seeni Dieng di xamle ni bile lakk moom yóbbu na lu tollook ay milliards yu bare waaye li ko waral mooy yéex giñ ko yéex a fay. ndaxte ba ci àllarba gi lakk gi mu ngi doon wéy di def liggéeyam.